هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله كرك dana dana xumb de dana xumb de dana jafe lool waaye ci kan ki yitteelu doon yàlla ki delloowu doon naar bi xorom si na loolu leer gis nga léegi ki soobu léegi na yàlla laa soxla waxtu wum jëlee lépp delloo yàlla yowmal xiyaam dooragut ci moom de waaye soriitut ko de ndax lépp delloo na ko yàlla te bu ëllëgee te duñ ko isaab ci dara ndax moom dafa nanguloon yàlla feeñu waayam yi القران وخناكو ومن احسن دينا ممن اسلم ممن اسلم وجهه لله وهو محسن كيب كين گنت رافيت دينا كو جوخ بوبام يالا تا دلو سي وات حقيقه المعمريه ديف ديغلي باي تري كون كوكو مو ньоญو مومو واخ جي دي يا ويلتنا نيوم دنج كو واخ بو كيروغي دي لي باتاب هيفير لا موي كي توبون بانيخ يي كي ياكارون ني ادنا موم موم موم نوز رك لا kooku mooy wax yaa waylatanaa sama programme yëpp yàqu na maa li haasal kitaab ma xool leen téere bi lañuy jox ma laa yuxaadiru saqiratan wala kabiratan illa ahsaha moom daal lu ma mos def ci lu bon lu tuddee lu lu rëy yëpp ngi téere ma lii fu ma ko jëmee fu ma ko jëmee sama borom ne fa taraa da nga gis yow yonti yàlla muhammad al mujrimina kacori moy bandi musfiqina ñi nga xulli seeni i bët ngir tiitaange mimma fi ngir la nekk ci bi téere ba ba yaquluna dana ñu xànd ñam ñëpp di wax ne ya waylatana waye ñu yàqu nañ lolu baatab reccu la de mali hasal kitab ma du ngeen xol bi le bayut saqiratan bakar bu tuti wala kabiratan du jagen bakar bu ila azaha dere bind nañ ko ci de sama borom ne wo da ngeen fekk ma xam lo lepp lu ngeen di xaadiran ñi teewal ko rek mu ngi ci wala yaslimu defu togn rebb ko sa borom aadan kenn yalla ne man duma togn de ah yalla ne téere ba lo fa fekk rek yow la jaru kenn du la tooñ yàlla mu ne duma togn pour wañil la sa sa yu bax duma la togn pour yokal la yu bon non non wala yuslim wala yaslimu rabbuka ahada yàlla du togn mukk yalla du togn ñun kay ñooy jëflante ci suñ biir léeg-léeg ñu war laa fay euh, hundred ñu jox la fifty waaw ñun ñoo laay léeg-léeg ñoo laa war a saynal kayit ñi bañ ne duñ ko sayn nga sonn waaye yàlla nee na man loolu du man de wa wajadoo maa xamiloo xaadiran waaw alxuraan mu ne lépp a indi ne gàññi ngeen jenoom réccu rek a fay sës boobu mooy réccu abadan bu dul jeexati aaya bii ñuy dugg dafay wax diggante malaayika yi ak aadama ak ibliis yàlla di saxal ne mbindeef mim njëkk a mu ñëw ci melakaanu nit mooy aadama bi mu ko amalee fekk booba malaayika yaa ngi fi di jaamu yàlla iblis ak fi muy jinne jinne la moom iblis waaye dafa ànd ak malaayika yi jaamu yàlla bañ boole ko ci malaayika yi waaye duwul malaayika bi yàlla bindi mbindeef mii ci la leen exam exam bi mooy lan dem leen ngeen nuyu ko màggal ko moom aadama su jóot bi loolu la ci mu dem leen ngeen nuyu ko màggal ko ngeen xam ne mooy seen sëriñ malaaka ñoom duñ mooy ndigali yàlla ñi dem su ñi daal di ko su jóotal su jotam nangu su jotam nuyu iblis mu ne maa bañ man maa bañ mbindeef mii duma ko nuyu duma ko su jotal ma di man ñi ma bind ci safara moom ñu bind ko ci poto poto bi maa ko gën taasub ñëw na tribalisme ñëw na ak moo bon man maa ngi jógee ci safara moom ci poto poto moom ku ko wax ne safara moo gën poto poto safara loo ko dénk da ngay toog xaar ko bu dul loolu mu lekk ko ba mu jeex soo fi doon togg léegi boo sëree si jeer bi bu nexe yalla do yak de waye suuf si lepp loko jox da nga dem ci sa lal ba teud mu yokal lako ko mu bari bari bari bari ku ko wax ne ko safara moo gën suuf hmm? te nga gënante bi nekku ci cosaan nekku ci cosaan yi yep ben la do adam mom mo gën mo bugg rek man mangi ngi bokk barab man maa ngi sant nangam man dekk sangam la dekk do adam mo gëm lo rek waye cosaan yi duñ ci gënante li ñuy gënantee mooy xol bu set bu jokk ci yàlla ak jikko bu rafet lii rek la ñuy gënante kon yàllaa ngay jàngale ci aaya bi ñuy dugg euh, rëy ak iblis ga moo ko xañ jàmm ba dugal ko sama sama borom ne wa fàttalikul yow yonent yàlla muhammadu is qul naa ba ñu waxee ñun yàlla lil malaayikati ñeel malaaka yi na leen usjudu sujjóotal leen li aadama ñeel aadama fa sajadoo ñoom ñëpp ñu nangu xam nga malaayika moom du mooy yàlla laa yaaluuna laa ma amara wa yafaluuna maa yumaroon illaa iblisa ndere fa sajadoo ñi sujjoot illaa iblisa ndere iblis de setti na ko ci biir malaayika yi waaye du malaayika kaana nekk na minal jinni bokk ci jinne yi iblis jinne la woon yow mi doon laajte loolu iblis jinne la woon yàllaa ko wax fa fasaxa mu génn topp fa fasaxa mu murtat an amri rabbihi ci bàyyi ndigali boroma booba nag la ko yàlla dàq ci yërmandem moom itam mu dem nag sukk ca kanam yàlla comme xam na yàlla xam na ne borom kàttan la mu ñaan ko yàlla man kay yàqule naa ni mom moom waaw damay yàqule rek waaye duma ko sujjootal duma ko nangul mukk waaye nag man bëgg naa nga may ma kàttan ma dund ba gudd fan su ko defee ma mën a jëflanteeg sa gaay yàlla na demal may la mu dem samp partim bi partim bi nag bi mu ko sampee daf ne yàlla danaa def li man de danaa am ci ñoom mbooloo de nasiban mafruda danaa am ci ñoom mbooloo de sama parti bi dana bëri nit de loolu la wax yàlla moom iblis ci suratu nisaay daf ko ne sama mbool sama parti bi dana bëri nit de waaw danaa taraaye de parce que la aq wax na ko ci suratu euh, la la la aqodanna lahum siratakal mustaqim ci digg siratal mustaqima trafillah bi lay toog ku war a jaar raayit ma jaar loola lef ku war a jaar lef ma jaar loola raayit danaa ko dem de man yàlla du du ma ko caaxaanee de mom loolu moy liggéeyam te nëbbu ko moo borom benen moy na ndigali yalla ni seril ko yermande ngi mom iblis waaw mu bari nak dom lol ndax mom moy sey ak bopam domi di judd iblis amul amul jabar da fay sey ak bopam domi di judd wa ben xëmbam rek dana jur ay junni junne nen junne yep da fay nek ay talibé mak ay andandoram yu koy yu koy yu koy iblis momu nak so ci dan noppulu dang koy ragal ba def ko muy yow sa bakkan bi waaw ragal ko ba def ko muy sa bakkan bi ndax leg leg sa bakkan bi mo lay togn de so borom ni iblis momu nak mën def leen mu bañ ne duñ def moom laa len di laaj ndax lu tax ngeen di ko fi bayyi ngeen dama fi bayyi len di andam afatattaqisuunahu ndax da ngeen di jël iblis wa zurriyatahu ak i doomam awliyaa def ko muy xarit min doon yi ngeen bàyyi ma fi wowum te iblis ak ñim àndal xadduwun noonu lañ lëkkum ñeel leen sama borom ne bi sa bon na li daali mi ne ñeel way tooñi badalan ci weccee de waaye yéen a xel iblis mu ñàkk fayda mi le saytaane mi le ngeen jël ko def ko àndandoor man ngeen bàyyi ma fi man yéen de li ngeen weccee baaxul bisa li zaalimiina badala sama borom ne iblis ak ñim àndal maa azhattuhum teewu teewalu ma leen xoon xalqa samawaati wal ardi ca ba may bind asamaan ak suuf ndax dañ fa nekkoon iblis ak gaayam yi ngeen àndan bàyyi ma fi damay laajte ndax asamaan ak suuf ba mu koy bind bu ñoom dañ teewoon tontu bi mooy non nekkuñ fa woon kay wala xalqa anfusihim du jaageen bind gi ma leen bind ndax bi ma leen di bind booba iblis dafa nekkoon di leen di ma dimbale déedéet yàlla ne wamaa kuntu nekku dégg nga man yàlla mu taqisa di jàpp al mudilliina way réer laate addu addoo leen ñi ndimbal ku réer bay réer laate ndax kooku danaa ko jàpp di ko def ndimbal non man dimbandeekowuma iblis iblis dimbalewul ma ci bind asamaan ak suuf iblis dimbalewul ma ci bind doomu aadama yi dégg nga iblis du ma ko jël di ko def ku ma wasiir bu may dimbale bu ma soxla woon wasiir sax ma jël malaayika yi waaye koo xam ne dama ko sant defal mu bañ dinaa ko dinaa ko dem dimbal hmm? lu tax nañ ngeen bàyyi ma fi dem jàpp iblis def ko muy ànd àndandoor lu tax buñ leen laajee dépenser ci sama yoon yi ngeen bañ bu leen iblis wooyee ngeen lu tax seen am-am yi ci xam-xam ak ci alal ak lu mën a doon ngeen di ko delloo ci iblis mii nga xam ne paatim bi paatim weddi la ngeen ànd ak moom bàyyi ma fi man yàlla bixsa li zalimina badala yéen de li ngeen weccee baaxut li ngeen weccee de waaw lépp ak dof-dof lu rek ak topp bakkan yàlla ne ma azatuhum xalqa samawati wal ardi ba maay bind asamaan suuf nekkuñ fa wala xalqa anfusihim bi maay bi ma leen di bind ñoom nekkuñ fa Hmm? te man sax de bu ma doon ut wasiir mooy ay vice président wala may ut ay bodyguard yu may dimbale ci liggéey bi wala may ut ay ay lamrees ay menebar du ma jël iblis ñi nga xam ne dafa réer borom xam-xam laay jël wa ma kuntu muttaqisa almudillina haduda ku xamul dara dog bu réer bi danaa ko jël di ko def mu nekk sama sama sama labrees hmm? te yàlla sax mu soxla ci labrees bu far dégg nga wax sama borom ne wa yow ma yaqulu keroog bis boobu bis la boo xam ne dana mu wax moom yàlla ne naa du oo leen surakaa yee samay bokkaale ana yàlla ñi ngeen waxoon na yàlla leen te duñ yàlla ana ñu oo leen leen ñi ñëw ana sama morom ñi yàlla mu ne hey oo leen sama morom ñi ñëw ñi seet ba xam ay ci ana ñu wa yawma yaqulu bis ba dana mu wax ne naa doo xooleen surakaa yi sama yàlla seen yàlla yi mooy sama bokkaale sama moroom ñi de waxoon leen ma sama morom ñi allazina gaa ñi nga xam ne saamtum waxoon ngeen ne ay yàlla lay xooleen leen di ñëw waay daa daawum ñu xooleen ñoom yàlla ya falam yastajiboo duñ wuyu lahum ñeel leen de ñi oote oote kenn du ñëw ñu xam ne mbir yi yàqu na de bala nga naan naan ne fa lu doxul yàlla du nekk yàlla wa jaxal naa ñi def ñun yàlla bay na moom seen diggante maw bi xan baaraas maw bi xan xur xur woo xam ne safara nekk ci biir bu ñu oote rek duñ mën a am yàlla ya yàlla dal di leen woon benn xur wu xóot kàmb goo xam ne lépp safara waraa da nga gis ke rek al mujrimoon a kàccoor yi mooy bandi yi annaara waraa dana mu gis a bandi yi annaara safara fa sannoo ñi am hóolute ne annahum naka ñoom mawaaqiuha danañ ci tabbi tey wala muy jidoo duñ fekk masrifan rawwaay xanaa ci safara de waaw bu nag borom bi ne fa ñuy ooyee seen yàlla ya mënuñ leen di am rek fa lañ leen di wane kàmbi safara yi ñoom ñëpp ñi am yaqin ne aha fii mooy mujj gi te benn muccukaay amul benn rawukaay amul wala mu yajidoo xanaa masrifa waaw duñ am kenn ku leen génne amul kenn ku leen dibbee xalal du leen fa jëriñ doom du leen fa jëriñ amul kenn koy yaakaar ci suñ fii ñun kood yi soo amee alal léeg-léeg nga tooñ mucc soo amee euh, dégg nga soo xamee ay nit ñoo xam ne ay borom diplomate lañ léeg-léeg nga tooñ mucc waaye yàlla nee na foofu moom bu ñu demee ba àtte leen ba nga xam ne ñoom ñëpp war a al a naara fa sannu annahu muwaaqi'uhaa xam nañ ne tey fii mooy mujj gi wala bay jidoo xan xaa masrifa mucc kay amut ma tee daw léegi dem ci yàlla daw ca ba ngay ami tànk alquran bàyyiwu dara ñun ñooy gëmm-gëmm rek di tay tay rek waaye lépp leer na lépp a ngi mel ni jant wala mu gën a leer jant yan nañu yàlla dimbale ku doo ku doo góor amut ku yàlla dimbalee am waaw sama borom ne wala qad zarraf naa leeral ne ñun yàlla fi haasa alqur'aani ci alqur'aan jile linnaasi ñeel nit ñi min kulli masalin ci bépp misaal yàlla mu ne man de mbooleem misaal mbooleem li buy jëriñ doomu aadama def naa ko ci alqur'aan waaye wakkaana nekk na al insaanu xéeféer ak sara zey in jadalaa moom daal moo daqaa xuloo ci ñuy xul waaye moo mën a moo mën weddi yàlla nee na alqur'aan a ngi nii lépp naa ko mu ngi ne dàng waaye doomu aadamaa mën a weddi waaye doomu aadamaa mën a lank ba fittéerlu ba tëdd ci suuf subhaanallah tey moom suñ a suñ suñ darsu bi dafa saftee de mu ngi wëlbati rek di jàll bi sama borom ne wala qad zarraf naa leeral ne ñun yàlla fi haza alquraan ci alquraan jile li naa si ñeel ñi min kulli masalin bépp lépp xanaa nga bañ lépp leer su nekkee sariatu la leer muy lislaam bi su nekkee liimaan la na bu dee maqaamam lisaan la leer na dafa des ci yow rek luwaa yi luwaa boo soxla mu ngi ci alquran lu xam ne doomu aadama yi kees boo ko isil laal mu atte ko alquran kees ko mu wax mu ngi nii wala qad zarabnaa bi haazal quran li naas yow yaa em fi nga em rek waaye yàlla nee na kees bu ngeen isil mu atte ci alquran waaye seetal doomu aadama wa kaana wa kaana al insaanu jadala doomu aadama di weddi rek di weerante rek waaw waaw mango wala xad zarrafna leeral ne ñun yàlla filance alquran ci alquran jile li naa si ñeel ñi min kulli masalin ci bépp kees kees buñ soxla aduna ak àllaaxira lépp leer na waaye wakkaana nekk na al doomu aadama wala nga ne xéeféer akasara sayin jadala moo daqaa xuloo ci ñii xuloo صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين لا من ون ينتا الجانا يوالف بإلك إن شاء الله بنيوي ني كونتيني ген في سورة الكافر Thank you. هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله